alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah alhamdulilah ala kulli xaal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gannaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di jaale ummul islaamiya yëpp rawatina xadaratul cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu ci musiba bi yi nga xam ne moo dal ci suñ kaw ñun ñëpp te ñëpp xam ko muy génn àdduna suñu yaay suñu sëriñ suñu xarit en même cheikha Mariam Ibrahim Niass radiallahu anha muy lu diis ci ci suñu kaw ñu ñëpp waaye nag ñu nanga dogalu yàlla rek moom mi nga xam ne moo ñu wax ci alquran ne wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa thamaraati wa bashiri saabirina kon nattu yi yëpp lim ñu ci sant rek mooy ñu mun te buñ munee muñee dinañ ci ànd danañ ci am maayatullahi moom mi wax ni inna allaha maa sabirina ma bëggoon rek yëkkati ay kàddu yoo xam ne li ma ci puus mooy sànq wala barki demu ba léegi fii ma toog gannaaw ba ma jotee appel yu bare bari ñëpp ci boppam jàpp ne li ma ndaw ndaw war nañ ma ko jaale ndax nekk ki ma nekk nag moom ci këram mu yar ma def ci man alquran ak l'islam en général ñu di ma woo di ma ko jaale ma topp loolu muy lu diis ci ñun dégg témoignage yi am ci moom yépp ci télé yu bokkut ak rajo yu bokkut ak ci journaux yi ci internet ñi du te ñuy teewlu loolu yépp ñuy dox ba yegg ci bés bi tey sànq ba ma déglu seede yu sell yu kawe yi nga xam ne ni imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé xafidahullah wa raa def na ko mu rafet lool surtout nag bi ñu dégloo xalifa bi mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Ñas radiallahu anhu wa xafidahu wa raahu wa taala baqaahu fi sixatin wa aafiya def ko muy seede yu rafet yu émouvant yu jëm ci Cheikh Mariam bint Cheikh Ibrahim Niass ba koy déglu nag ci laa yëg loo xam ne ma gis ne bala may am jàmm rek li may yëg ci sama dënn naa ko génne ci ay témoignage en tout cas wax ko tuuti jàmm yàlla yi ñu déglu ko ci laa décidé def audio bi te sama habitude daaw ma ko def waaye nag lu mënta ñàkk daal foog mu am Cheikh Mariam nit ku baax la yaa booy seedaa nit ku nit ku rafet jikko la nit ku sell la nit ku man alquran te xam ko la nit ku yaatu la ñi ma nekk moom yëpp daanaka juróom-ñaar at ci biir këram waaye nekk gi yemut foofu ba ma jógee ko foofu nag derlu ak jàngi ak génn ci biti yëpp terewul munaasabaat yi xew yépp ñu ngi jokkoo ak moom lu xew li ci ëpp dinaa ko jot jamono yi nga xam ne nii mag ki ñëwagul bu baax di ko laaj xalaat di sàkk ci moom ñaan mu di ma ñaanal di ma digal yàlla def tamit ginnaaw loolu mu daa ñëw Maroc lu bari saa bu ñëwee tam ñooy nekk ba bu mu jógee ko foofu waaye ci gàttal li ma xam ci moom mooy soxna soo xam ne nii yaay la ci wàll yépp éducatrice la jàngalekat la boo xam ne lim jàng xam na ko ni mu koy jàngalee xam na ko te mën na ko alquran lañ ko xamee waaye alquran ji mi ngi ko nampee ci baayam sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu wa ardaahu ndax euh, comme ni ko ñëpp xamee waliyu bu nekk képp koo xam ne thabatat wilayatuhu kooku karama ñeel la ko Baay nag moom gaawantu ca njëlbeen nga ñaan yàlla yàlla defal ko moom karaamam ne nekk alquran mooy ba muy wax bayti bi ñëpp xam te yàgg ko dégg fal tajcalan xifda kitaabika alkarim karaamati ila liqaaika alcazim yàlla ñaan yàlla mu defal ko moom karaamam di alquran te ñëpp gis nañ ko te balaa ngaa xam li ko ci yàlla may mooy bu ñuy wax ci manaqib Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu bi sëriñam bokk na ci li ñu gën a souligner muy kemtaan ci jamono jooja mooy ci juróom-ñaari atam bam ko amee ci la mokkal alquran tey loolu ci pays Cheikh Ibrahim Niass juróom-ñaari at at ñaa ngi ci mokkal alquran commencé na bëri ba léegi sax daanaka tuñ ko comme karaama dafa mel ni lu na lu normal kon xamee nañ ne may na ko li mu waxoon karaama alquran nekk ko loolu nag bi ko yàlla mayee daf ko feeñal ci doomam yi yëpp ak sëtam yi ñu mokkal alquran jàng ko di ko jàngale ubbi ay daara taxaw ci am ci ay réussite yu mag waaye nag li leen ko yàlla may may wax tëgg yàlla ci Cheikh Ahmad dem ci la gën a feeñ la ndax moom la njëkk a xam ci jigéen ji ubbi alquran ci Dakar di ko jàngale débasage mokkal loo ñu bari jàngal ay kilifa jàngal ay doomi kilifa jàngal doomi julit ñi yee leen ci àdduna te formation yaa booy seeda yemul ci jàngal la kese dana la jàngal ba jàngal la nooy waxeek nit ñi nooy jëflanteek nit ñi relation côté relationnel eh, ak yeneen ak yeneen moo lay jàngal sax lislaam naka nga ci naka nga koy naka nga koy dunde naka ngay naka lay nekkee mode de vie eh, ci sa xayaat yawmiya wala bokk ci sa ci sa guddeeg bëccëg daal man mii di wax bi ma ñëwee ci këram yàlla dimbale ñu ñu def fa ñaari at d'abord mokkal alquran li ci at yi ci tegu yëpp lu jege juróomi at yëpp ci yar ñu ak defar ñu préparé ñu pour ñu mën dundu ci àddina bi mën nekk ak nit ci la nekkoon moo ma jàngal lecture moo ma ci yar moo ma liir moom ba ma mën a liir ba mën a jàng ci arab maa ngi fàttaliku ni ko daan defee dafay indi léeg-léeg mu génn ñëw wala ñu indil ko ay journaux arab wala magasine mu aw mu ñëw bi mu ma ko njëkkee def loo boobu mënuma liir mu jox ma benn texte ne ma liiral mënta ma boobu nag ci sama bopp laa ma ko la xam mënta ma ne akida mu ne ma deet akkada lañu wax di ma corriger di ma teete ba dem ba macha allah amatuñu problème ci loolu fu muy dem yóbbaale ma te du man kenn def na ko ñëpp li lay wane yaatum gi mooy ak li lay wan ne ci mission la nekkoon te xam na ko mooy tànn ci doom jum jur man amul ràññale ci doom jum jur ak beneen ak doomu jàmbur juñ ko dox jox parce que ñun li ëpp bu daan voyager ci mission bi nga xam ne nii ci la nekk di tasaare islam tasaare alquran ak di ut ay ndimbali yoo xam ne dafa jëm ci jaamu yàlla yi ak taxawal li mu mujj taxawal yépp ñun dañ daan ànd ak moom pendant des années mais ñun ñi daan gën a ànd ak moom boo seetloo sax kenn du ci ay doomam doom en tout cas doomu roxam lañu waaye duñ doomu deretam man ci laa bokk surtout ki ci gën a fees Ali Harazim mi nga xam ne tey ji imam la sax moom it éducateur la comme ma Mariam comme yaa boy Seyda ca France danga ci gis ñoom Ado Adam Haruna Rachid Ibrahima Doucouré man bi parce que ñii may lim mooy ñi nga xam ne ba ma fa nekkee ñoom ñoo doon sumay morom ak ñoom Thierno Aj ñoom ñëpp Cheikh Baye Kane ñi ñëpp Seyd Lamine Seyd doomu Ahmad Cheikh eh, suñu baay Ahmad Khalifa ak ñeneen ñun ñooñ ñëpp dañu àndagum ci ay tukki tukki boo xam ne bala ñoo dem liñ fa war a nekkee naka lañuy nuyoo jàmm yàlla yi nu ñu jëflanteeg ñoom personnalité yi ñu war a gis naka lañuy nekkee naka la ñu woo ak ñoom lépp dina la ko waxal laata nga jógee ko fii ak bu nga nekkee ci biir tukki bi ci biir loolu nag ci la ñu xamaleek àddina ñun. wala nañu ay kilifa gis nañ ci ay buur ci Saoudia ànd na ànd nañ fa ay yoon gisante nañ ay président président Niger premier ministre ah, ak yeneen kilifa ci àddina bi ñoo xam ne nii kum toog ak bàyyi yu ñu toog ci wet gi li muy waxtaan ñu di ko dégg ci laa xamee ne mi ngi ñu jàngal diplomatie mu ngi ñu jàngal loo xam ne ëllëg dañuy dimbale te ci loolu cey ci lañ nekk tey lépp ñu ngi ko amee ci barkeem mu ngi ko yaatu du lekk mukk bàyyi ñu ginnaaw li ñu fa nekk yépp añ reer ndekki lépp ñoo koy bokk ak moom man maa ngi ko daf ma yërëmoon ndax tuuti gi ma tuuti woon ak macha allah xaw a voilà xiiboon daan nañ daan naa lekk sax pourtant comme ñëpp waaye lii ñu bari xamuñ ko léeg-léeg daan na ma tëj ci biir néeg bi génnee macha allah ay léegi léeg mu génne ko aj wala daj li génne la lekkal danga dama bëgg nga am yaram dama bëgg nga gën a dëgër macha allah loolu yëpp boo jàppewul nit ki doom ji nga jur kon doo mën a def loolu ci moom moom nag comme ni sëriñ bi wax sànq Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim xafidahullah waraa ne yaay la woon mu ne ummul muminina soxna yonent bi jël nañ ko waaye moom it war nañ ko mën a ooye loolu ndax ummul muminina eh, yaayu jullit ñi moom yaayu jullit ñi parce que nag ñi dajee ci këram yëpp mu leen yar ak daaraam yi ubbi yëpp ñoo ñëpp ay jullit lañ te moom yaay la ñoom kon na ko hiya ummul muminina bila shakkin wala kon nag yàlla na ko yàlla yëkkale ci ala illiyina ma annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin wa xasuna ulaika nañ koo xam ne tey kenn mënu ko uutu yàlla mi wax ne wala ñu teñ jàngee ko ci sunna bu ñàkkee dara wala kenn ñu wax inna li ñu nanga dogal te wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla dañu ëttalal lu gën Cheikh Mariam nag yàlla rek mooy ki ko gën ci ñun kon yal nañu yàlla uutu ci moom yàlla may ñu mission bi nga xam ne taxawal na ko te am na ay jaam yàlla yu ci liggéey ci bi fi nekkee ñoo xam ne ñëpp moom lañ génnee ma jël euh, exemple comme Cheikh Abdullahi mu baba moom mi nga xam ne ubbi na alquran dara alquran ju rëy joo xam ne boo am réussite yal na yàlla yokk réussite bi te musal ñu ci bépp musal ko ci bépp gàllankoor ak cat loolu rek wane na ne liggéeyu Seyda màgg na ak ñeneen ñu ubbi dara jóge ko ci moom ñoom Ali Harazim ak ñeneen ci biti loolu yëpp day wane ne euh, li Baay waxoon ne wa ashkuru rabbi laysa sirri aqira mi ngi sant yàlla mi nga xam ne mbootam jërmeerlu dafay jur mboot moom feeñ ci moom tam jërmeerlu lu jur la te day continuer du jur projet yi mu teg yëpp yàlla na ko yàlla mottali yàlla yekkali ko man day li ma nekk ak moom foofu yëpp li ma gis mooy yaay ju baax yaay ju yaatu yaay ju jullite yaay joo xam ne xam meewut kum jur ak kum jurut loolu il faut ñu koy wax lim am yëpp fu mu jugaan nekk ci mission bi ñi muy jël comme ni ma wax sànq. ñoom ñëpp daanaka juru ci kenn waaye waaye nag ci baatin moo jur ñëpp nag euh, maa ngi fàttaliku benn bés dañu mës a ànd dem Saudiya ñu nekk ma Madinatul Munawara mu ooma ñu jógee ci rawda bi dellu saa ci hôtel bi mu ool ma ñu ne ko damay naraw ñu yee ma mu ne nañ ma yee ma ñëw mu ne ma nelaw taxul ñu indi la fi gis nga sa baay biñ ko indee ci ci baay bu fa nekkoon di nelaw rek kon fi mu yegg tey du fa yegg jàppal na loolu moo feeñaat fii rek moo loolu moo répété wu at fii nii kon nag wàññi nelaw bi te nga jàng alquran mokkal ko xam ko ma def ci yow li ma bëgg a def ci yow keroog ci laa commencé daal en tout cas ñu góorgóorlu liñ man ba yàlla dimbale li nga xam ne moo ci suñu wërsëg mu def ko ci ñun waaye yemut foofu cheikha bépp bu mu toogee tey ci di waxtaan ak ay kilifa bu dugg see sax laata kilifa gi dugg si moo xam buur la wala président wala dara wala ministre yooyu danga nga dégg mi ngi seetaat di maanaam ni mu lay yare ci boppam détails yi du bàyyi dara mu ngi tourné di la xool defal sa tànk puus ko nii na sa tànk bi taxaw baax tegleel nii la du nii bul bul tegl sa loxo tegee ko nii kilifa kenn du ko kenn du ko ak accueillir nii dana dem daal ba jàngale ba nga xam ne nii fu ne da fa mën a nekk ku ne di nga ko mën a gis ba pare li njëkk a dindi coow mooy complexe parce que âge boo xam ne ay 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans mu fexe ngay gis kilifa yi nga xam ne ñoom lañ naw tey ci àddina ñoo jiite àddina bi ngay toog ak ñoom. xam nga loolu da nga dem ba complexe doo toog am te loolu fi mu ne nii macha allah jëriñoo ñu suñu àdduna tey danañ respecté kilifa yëpp waaye amul kenn ku ñuy toog ba mu fees suñu bët loolu yëpp Seyda moo ko def ci ñun mënu ko fay yàlla rek ko mën a fay yàlla ko yàlla lépp loo xam ne mébétoon na ko rawatina jumaa ji mu oote daaw jeeg vidéo bi ñëpp gis nañ ko ba nit ñi commencé joxe seen participation te moom moo ko commencé teg cent millions ci table ji yal na yàlla def mottali liggéey boobu yépp fi mu buggoon mu yegg yal na ko fa yàlla yeggale yal na lépp yal na yàlla xiir taalibe yépp ak jaamu yàlla yu bëgg lu baax ñoom ñépp ñu jublu ci taxaw ci pour yàlla taxawal ko mu nekk loo xam ne dina sotti ci jamono jii xalifa bi fekkee ko rakkam yu baax yi fekkee ko ñun ñépp ñu fekkee ko mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy tasisa ala taqwa mu nekk loo xam ne pour jaamu yàlla yi la taalibe yi ak ñu dul taalibe yépp yàlla na ko yàlla def bi jaahi man lahul jaahu inda allahi wa sharaf sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi jaale eh, si suñu mag eh, cheikh bin omar kan ak rakami waaw suñu tata asi kan tata aja tata asmaaw ak seeni rak professeur Ousmane Kane ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di jaale di jaale suñ bopp parce que ñun ak ñoom ñoo ci yem képp ndax sayda hadiya la boo xam ne nii wala yërmande boo xam ne comme li yàlla waxoon yonent bi lu yonent bi waxoon boppam ne innama ana rahmatun muhdaatun mel ni cadeau yërmande la boo xam ne yàlla ko may mi def yi sayda tam cadeau yërmande la boo xam ne yàlla ko may mi def yi li mu def ci ñun ñëpp mënuñ ko wax waaye daal même buñ ñàkkee yaay it moom ñàkkuñ ko comme am nañ ko rek amoon nañ ko ci suñu bañ fi maanaam ci bi mu fi nekkee te dañuy continuer di ko am ndax ni mu digle ak ci yim nekkoon ci yooyu rek lañ fas yéene nekk wala yàlla dajale ñu ak moom yàlla yeex gannaaw dund gudd yal nañu yàlla defal loolu ci barke Baye barke Cheikh Tidiane barke yonent Yàlla Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa